partie parti euh, justement passif japonais nga ni euh, am euh, mais une vidéo yi n'a xamni tam ko mi exactement gis ñu koy li nga touch exactement li nga cocktail molotov peut-être pour li nga exactement alors avant elle m'a qualifié justement de flagrant qualifié concrètement c'est-à-dire que les vidéos, tu ne reconnais pas de visage. Tu as vu des gens, mais tu n'as pas reconnu le visage. Il faut une enquête. C'est-à-dire que les gens il faut que am procureur moy autosaisir ba paré une enquête pour nous ragner détecter ces personnes là. la flagrant délit. man damay japp fallu muy def une affaire ma xamni ki fallu la jarul plainte wala jarul enquête dam ko japp loxo ci poste fallu kañ dem yow la japp fi mais bo gisee ay vidéo ba pare munoo détecter kanam yi bo wax wax ni que ki diw la la dëkk la mais procureur day soxla enquête ba tey day am enquête man je suis d'accord pour que nous oublions une enquête pour ñu xam ñan ñoo def mu parce que man je ne cautionne pas ay taal ay siège man je ne le cautionne pas je ne suis pas d'accord ça n'a rien à voir avec la politique ça n'a rien à voir mais attention attention attention gis nga ci campagne la ñu victimisation bi dafa commencer. victimisation bi. dafa faut non enfin non enfin du victimisation. victimisation Il euh, ma yu lo xamni tam sérieux sérieux. mi fi. soyons euh, euh, dama dama faut sérieux. là on parle de saccage là on parle de son nid exactement. je sais bien ce que je dis ay nit occasion na fille ay ba victimiser ci campagne gis nga campagne vous commencez voilà élection bu jubsee ces arts de pratique fay faral di am man je nie pas ni que am nañu tal chaise vide mais dama il faut faire très attention il faut faire très attention tous les thèses ne sont pas à exclure man ne la il faut pas exclure tous les toutes les thèses parce que on est en période de campagne man ne sais pas waxuma ni que ñom ñoo ñom ñoo tal propre piège une propre siège après ñu victimiser je ne l'ai pas dit dama moi je ne n'exclus pas tout toutes les thèses je ne n'exclus pas toutes les thèses de hmm. tant que procureur oublie l'enquête enquête ba mu leer na ni que ñii ñoo def man toutes les thèses ni ma gëmee ni que dafa am ñu taal siège taxaw ndakaaru non la gëmee ni que wakambi camp nous organiser seen propre seen propre affaire ba pare. di victimiser wu. oui mais su la neexee man nga wax loolu. su la neexee man nga wax loolu. dama né sous la neexee man nga wax lolu man j'analyse dans toutes les dans toutes les plans maintenant yo si tu peux être légiste c'est ta position dama né man je n'exclus aucune thèse point ba keroog enquête yi parce que man li dama japp ni que comment le camp de de de de hmm? de taxaw Sénégal. oui war a préparer wu à ça concrètement. fii foo dama ne foofu laa yem. il faut mesurer justement peut-être su nekkoon Pastef la do len ko wax. ni que ni ñom ñoo préparer sen camp. muy euh, dama ne euh, muy Pastef. Euh, leader bi génn dama ne muy Pastef muy feneen doon utiliser stratégie muy Pastef muy feneen. li boo amé duma exclure toutes les thèses point man fi la yem man kenn du wax loolu. dama ne fall mais gis nga mais gis nga xam nga xam nga Fallou il faut nga xam mais quand même il y a des pertes en dommages et intérêts à fond t-shirt yi ñu defaroon euh, parti à travers euh, ces fumées. Fallou là il faut que nga xam il faut nga masawu leen mais waroo amoo droit. xam xam nga man xam nga man xam nga man Fallou man ken du manipuler man ken du manipuler Ken du ma waxloo wala kenn du ma noppiloo lu bëgg wax il faut que nga xam loolu yow tu es bien placé pour savoir que man ken duma manipuler kenn wax loolu mo wax dama né on est en période de campagne la fa laa njëkkee dama né dama njëkk wax ni que man je ne cautionne pas ay tal ay siège par pour man campagne du lolo pour man politique du loolu politique ken warul tal ken ken warul agresser ken ken warul dor ken politique on doit parler on doit comme adresse avancer des discours pour que population comprenne. comprendre l'élection, la élection la campagne c'est le rendez-vous d'un homme et son et son peuple mm. un rendez-vous entre un homme et son peuple loolu une campagne élection c'est ça une élection maintenant qui demee ci campagne da tenir un langage un discours convaincant pour que nous, lay ñu lay nous lay convaincre au soir du 17 Nous mën voter pour yow c'est ça un discours c'est ça c'est ça une campagne mais campagne man cautionné wu wara dem tal feulé wala Abass Fall dafa nek du rombo ngay dor ay otoom kayaase ay autom gañ ay jigéenam man je ne cautionne pas ça c'est la même chose ni ma cautionné ni que dañu wara dem tal feulé gis nga di même moment gis nga di même moment buñu wara ubi enquête buñu wara ubi enquête pour ñu taal siège euh, taxaw dakaro c'est la même chose lañu wara ubi enquête pour que nous agressions Abbas Fall c'est ça la réalité Nous agressions Abbas Fall Nous identifier ces personnes là Nous aussi le siège Nous identifier ces personnes là gëm donc comme yow Fallou yow da bëgg wax ni que man bu féké wax wala bu féké wax c'est archi faux man aussi dans mon dans mon discours

enfin je précise bien waxuma ne parti pas bokk waxuma leen di bokk ne si parti pour euh, qui que ce soit mais quand même est-ce que japon l'essentiel moi ki n'a xam ne le ministre bi qualifié exactement euh, ay ou euh, ni mon âme am fait pénal est-ce que japon yi itam fu essentiel que ni ñuy aventurer wu que ni ñoom peut-être euh, d'avancer seen bopp seen propre gré et tant d'autres et tant d'autres parce que lui c'est très dangereux en fait. ouais c'est l'utilisation de ces cocktails molotov exactement. c'est très parce que je ne trouve aucun intérêt est ñu am ko pour taal seen propre siège nous ñu war a politique. dama c'est très dangereux xam nga boo ma c'est-à-dire que foo nga déglu ma fàllu nga bàyyi di jël ce discours partisan bi tu poses des questions tu n'es pas là pour un parti moi non plus tu me poses des questions je réponds alors dama boo ma déggoo ci njëlbeen sama dama man je ne cautionne pas l'agression physique ni l'agressivité dans la scène politique dama ne man yagna am taxawaay boobu musuma ko cautionner ni que dañoo wara agresser qui physiquement qu'on voit qui di romb ñu agresser ko loolu la yàgg wax keroog bi may taxaw Barthélémy warul teku Abass Fall bi ngay ne Abass Fall warna naa moytu Mermoz sacré que mané la dédite Abass Fall warul am sens interdit fi Dakar parce que il s'agit de battre campagne campagne fi gox bu nekk war nga fa dem di battre sa campagne te yoon mo la ko may il faut pas dire que Barthélemy Diaz Mermoz Sacré-Cœur le dëkk wala l'egi quelqu'un qui est dans le pouvoir le parti au pouvoir warul dem Mermoz Sacré-Cœur di battre campagne parce que buñ fa démé day melni ni la ci Barthélemy Diaz c'est comme si Barthélemy Diaz mom moom Mermoz Sacré-Cœur Sacré-Cœur man ne la je suis pas d'accord Barthélemy sañ-sañ bu mu am di dem battre campagne feneen ci ay yenen gox non la kenen amé sañ-sañ di ñoo battre campagne ci goxam c'est ça la réalité donc il n'est pas dit que diw ñëw na mon Sacré-Cœur dañ ko wara agresser je suis pas d'accord les actes de Bari Bari ñi ñuy def ci le convoi de Abbas Fall c'est pas normal fofu laay parce que nous musuma gëm agression ci campagne c'est une question d'idée bon amé idée demal nga soumettre ko le peuple le peuple c'est le peuple qui juge c'est le peuple qui juge, qui est le juge. la ne les tamit ku xaar ku xaar ba xaaju guddi dem ci siège jàmbur je ne cautionne pas ça pour moi, c'est l'argument des faibles C'est nga agression physique C'est l'argument des faibles Moi, tax ma man depuis ay depuis ñi commencé parti c'est là où je suis pas d'accord c'est là où je suis pas d'accord du coup yow y poste flagrant délit bi nga utiliser le mot là Moi, le mot n'a pas son sens ici parce que flagrant délit grande quoi wax da ngay fekk nit muy agresser nit nga ni wala muy sac. nga fekk ko loxo ci poste nga ne ko diw yow yaa ah, bi nga nga ko au moment de l'action nga identifier ko japp ko au moment de l'action c'est ce qu'on appelle flagrant délit jarul enquête. mais ñi suñu leen jàppee flagrant délit la xama nga bo boo leen demee ba identifier leen ba identifier leen ba enquête muy enquête muy wëy pour xam ñan ñoo leen yoni ñan ñoy ñan ñoy ñan ñoy ñan les les les comment les délinquants de def donc il faut pas utiliser très tôt très tôt battre flagrant délit flagrant délit à on a vu des images des vidéos d'accord mais à travers ces vidéos là tu n'as pas identifié ces gens. alors c'est clair ay ay une couleur yëre nga gis ay masque yu mais tu n'as pas identifié ces personnes-là. Mm. On a besoin d'une enquête pour les identifier. Donc, tu ne peux pas parler de flagrant c'est clair. C'est clair. L'air par rapport ce que lui, la tournure allant dans sens exactement. Euh, mais euh, euh, enfin, du côté de la régie Elage, de nous avons des informations sur que